gannaaw ab vidéo bu tas ci réseaux sociaux yi di wane ab xale bu ndaw boo xam ni matalul sax fukki at solol ko loo xam ni rafetul ci gis-gis ba pare di ko fecciloo tax na bu procureur tribunal hors classe bu Dakar dal di jëlal boppam mbir mi ci la yabale division cybercriminalité si Louga ngi ñu amal akub l'enquête ñoom enquêteurs yi jóge Dakar bu nu ñëwee si Louga ci leen lëkkaloo ak police bi yor enquête bi ñu daal di teg loxol ci tiktokeur bi nu nii moo dugal vidéo yi ci linternet internet ñenn si ay tëggkat yi ñu doon organiser sabar boobulee ba fi mu toll nii nag juróom-ñaari doomu aadama lañu si jàppagum enquête bi nag moo ngi woy si alxamis bi procureur bu tribunal grande instance bu Louga si ab bataaxal bu mu génnee ñaawlu na li nga xam ni moom lañu doon def loo xale yi moom mi nag di sàkku ngir ñu àtte mbir mi ba mu nekk ab exemple ci képp ko xam ni bëgg na defati lu ñu mel enquête bi nag commissariat bu Louga moo ngi wéyal lu nu mel.